ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek ak wopp ba coronavirus tey rek ci altine bi ci 2411 tests yi ñuy jot a réalisé 404 ñoo ci jot a positif ci 404 yooyu nag am na ci 126 cas contact 178 cas communautaire 10 dese ak 175 yoo xam ne rek ñu ngi ci bërëb bu fajukaay yi ba tey rek euh, ci xeex bi nga xam ne rek ñu ngi koy xeex ci mbas bi di euh, feebaru coronavirus ki nga xam ne nag moo di Serigne Mountakha Mbacké di xalifa général des Mourides daal na sàkku rek euh, ci ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ak këru diine yi ngir rek ñu amal ab jàng alxuraan lu ko dalee nag ci altine bi rek jàpp fukki fan nag ñaar ci weeru février mu tombee nag ak weeru rajab bi li ne mel nag ki ko xam xamle moo di Serigne Xaali Jaxate waaye nag euh, jàng boobu aajiwul nag ñuy dajaloo ku nekk rek mën nga toog fa nga nekk rek daal di ko fa defee ak yéen rek fële ca LONASE ki nga xam ne nag moo di jëwrin ba fa jiite rek di Lat Diop daal dina jox démb rek juróomi téeméeru permis ay euh, jeunes yoo xam ne rek da leen di dimbale rek ngir ñu xeex li nga xam ne rek moo di émigration clandestine ba tey rek ñuy wéyandi xibaar yi ci Equivox TV mouvement bi di frappe France dégage daal di nañ seet kii nga xam ne rek moo di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass di xalifu généralu Medina Baye ki nga xam ne nag moo jiite boobu le mouvement rek di Guy Marius Sagna daal dina profité rek ci boobu occasion rek ngir dénoncer jafe-jafe yi nga xam ne rek sénégalais yi ñoo ngi koy jànkonteel ak yorin bi nga xam ne rek gouvernement bi yore nañ ko euh, Sénégal ci noonu rek muy wéyale visitam boobu rek daal di jàll fële rek ca Ndaw ak ki nga xam ne moo di monseigneur Martin Bokar ñu àddu rek ci mbirum Boubacar Seye kii di président Horizon Sans Frontières ginnaaw rek nag ba mu àddoo rek ci koppar bi nga xam ne rek moom lañ jagle lépp lu jëm ci émigration clandestine bañ jàppoon ko ci kii di Boubacar Seye nag dafa daal nu feebar rek ca kaso boobu nga xam ne rek tëjoon nañ ko fa ba fi ñuy wax ak yéen nii nag état de santé rek mayatu ko ngir mu toog foofu ñi nga ñu accéléré boobu les procédures di ñaanale nag li nga xam ne rek moo di liberté provisoire ñu dem ak yéen rek fële ca ministère de la santé ku ne xam na ne rek weer bi ñu génn nag ab koppar bu takkoo takk rek joloon nañ ko fa lu tolloog juróom-ñaar fukki million ak ñeent ki def bile ñaawteef nag moo di comptable ba nga xam ne rek moom la dénkoon première phase du projet de renforcement bu système sanitaire bi ci noonu nag ki nga xam ne rek correctionnel bu Dakar li ñu koy toppee nag moo di détournement de deniers publics mu war cee tëdd nag ñaari atu kaso. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fii la ñuy daal di yem ak yéen rek ci xibaar yi tey di jaajëfal gomis mi nga xam ne rek moo nekkoon ci xarale gi